jóge ci kër Sëriñ Tuubaa dem ci jumaa ja dee fekk ko foofu kon loolu mujj ko rafet mënu ko weesu waaye nag maamam suñu shahid man xaw ma waaye juróom wala wala maamam sax bàyyi ma kon day doom mag moo tax waaye suñu shahid ku ne xam ne xamoon na taxawaayam ci biir yoon wër ci kër Sëriñ Tuubaa ci njaq yi nga xam njaq njaareem yi nga xam ne xam ne la ca daa xew njaq yi lu kiimaan da ci am suñ Cheikh Fatak Diop nett na ko ñëpp dégg ndax ndaaya bari woon na motoon na ñetti téeméer fu ko ñett saa suñ ko duyee bu ñu xëyee fekk mu jeex nee na bis nag am kenn ci magi taalibe yi koo wax ne ci taalibe yi rek ñu daal jaaxle ndax lii daal xamul du tax ak lu ci bi jublu te nanguur ko ci naan kooku ne naa ci naan ba xam lu tax ba mu ca naanee ñu xëy ñaqee ci des yëpp jeex ba mu des boobu nee bañ xëy nag sëñ bi woo leen tàngi jër dajale leen daan ne ana ko def lii kooku daal ne maa ko def mu daa cee teg baat bu am solo mu ne booba miim xewagut mu ne sëñ bi daan ne leen lii de boo liggéey bu doon ko defate ndax waa ahlu badri ñoo koy jëfandikoo te soxlawuñ seen des kon Sëñ Tuubaa nañ xam ne lim ñu dig ci àdduna rek mboolem lim ñu dig mboolem lim ñu lim ñu dig la Cheikh Moudou Moussa waxoon bu ma téye woon kaasu kafe mu wóor ma lii kaasu kafe la mu wóor ma lii kaasu kafe la la ma Sëñ Tuubaa wax te tegaguma ci moom laa gën a kon loola yaqin la war a doon ci ñun ndax ba muy wax loolu kat mas naa ko fay nettale boo dafa am ko jàng waccaal bihi daariya kal madina barakata wala kaabata musola kooku mel na ko xaw a sikki